mais nag booy waroo moon a njëkkantu da nga waroon a bàyyi ba ma ñëw gàlle ngay soog a ñëw nag booy ah non il faut ma jaar waaye tamit ma dégg yaa ngi ci réew mi ma toog kër ga non fii ma doon nga xaar nag xam nga rek bagage yi ñëw fii ak bagage yeeg nu mu bëree ak affaire fi mu toll nii maa ngi war a trier ay bagage nii dama ne woon suma paree damay jaar sa gàlle parce que maay booy xam nga ñu ngi ci doon waxtaan hmm. te tey laa war a dem gàllem pour seeti ko ah bon woon léegi su paree damay jaar sa gàlle jël la ñu dem non Tapos naman tamit. Sa mga buhay rin tayo, makakusahan ako. Okay. Tapos kita mo kayo water akong dumitil pak, info madam kerum. Kalau tan mau keluar kok es pun si jam wala per. Medang mai harga le sumenyu jelek pinte iya. mai cuma ya, boy. Apa nyudem fo? Boy ya, bae madam fere pas kita mit. Noron andang mengfi. Kom sang gigi sale ko. Oke. Mara ifo madam regla lalu pak. Pas mau kau di park tim peling mau ku medai sone rumah jelek. téléphone baa ngi sonné du ma jël suma e ma vocalé day lire vocal bi du tontu. non pourtant loolu. dama comprendre dara ci affaire bi kay il faut e ma dem foofu. est-ce que yëgul na yaa ngi doxaan wala affaire yooyu. dama lay bàyyi ngay def sa nga dem def sa course man maa ngi maa ngi dama ne woon damay jaar nii après continuer. en tout daal su ma paree dinaa su fekkee ne yaa ngi ma jëlaale la. am problème eh? ok. jaajëf bis kontaan naa nag. maa ngi ñëw dégg nga. incha allah ok. gis nga puissance am na jigéen ñoo xamante ne. dañuy yàq deru jigéen ñi man da am na genre jigéen ñoo xamante ne man aw sow tax na maa bañ doon jigéen. Mhm. Hmm. waaw waaw. waaw jigéen xanaa classe ak mama gi. mama waaw. parce que ñaata at la def ak jom. yàgg na. 5 ans mu daal di koy bëgg a bazardre lan ci matérialiste. ndax dégg naa dafa am benn faru moodu moodu bu koy defal loolu ak loolu. Hmm. Mhm. dégg naa benn moodu moodu de lay génn temps yi maman mook jom démb ak barki démb ñuy daanoo ko jub ñu def cinq ans de relation intérêt personnel ak gëm matérialiste yi ñuy wax ci jigéen ñi dafa nekk ci maman tax mu bëgg a jaay ngorom teg ko ci palaat di ko wanteer saam juróom maman xam nga moom bu tëddee ba guddi nga ne ko taab taab koo bëgg mu ne la jom xam nga maman moom jom lay nooyee yow xale bu góor boobu bu duggee ci moom xamal ne mbaraan tax mu dugg ci moom te maman tabaski bi instant bi da koo jaral lu ne muy def lu ne ndax tabaski bi maman daal lañ ko seetaan noonu rek waaye xam nga ne Mama jom la bëgg mama de bu bëggee jom feeñul ndax mbëggeelam la sacrifier ndax lii te nag genre mama yi dañoo bari ci société bi dañuy ànd ak nit di daanoo ko moom di jub muy neex ñoom ñaar muy naqari ñoom ñaar un bon jour ñëw rek matérialiste ak gëm intérêt jël seen mbëggeel sacrifier ko ndax xaalis wante nag dinaa la xamal su fekkee événement bi moo mu di ko def moodu moodu yi de la daj ci europe yaakaar naa bu ñu la yónnee seen xaalis sax war ngaa xool ni ñu koy utiliser bu baax a baax ndax métit bu ne dinañ ko daj mënoon naa yam ci jom ndax da koo bëgg ci 5 lañ def ñoom ñaar. ma xamal la leneen tamit góor ñi tamit ñu waye di lañ ndax yoon nit doo dem extérieur di liggéey bàyyi fi sa ndey bàyyi fi sa bàyyi liggéey ba war a ñëw teg nga koy jël di ko yónnee jigéen maman moom jarul sax nga si wax sa tension bi di yëg maman moom muy tay muy suba maman jom la bëgg maman moom nañ ko comprendre rek te xam ne tabaski bi moom moo tax muy jaay ngorom nii waaye tam góor bu liggéey tam mu ñëw di ko jox jigéen tamit yi nii. est-ce que xam nga maman làmmiñ bi dafa neex. leer na ma ne dafa gëmloo xale bu jigéen bi ne ko xale bu góor bi ne ko yow rek laa am aw ma kenn. lu mun munti doon daal nit boo liggéeyee jéemal xool noo si investir moo gën nga ñëw di ko jox ay jigéen di ko bazar ana yow ana man góor ñi tamit dañoo war a xolaat seen mbir de tamit. nga def tey mosoo ko def ma ñëw sa kër nekk sa wet nangoo ma sa xol te fi lañ doon toog di kaf di reetaan di waxtaan ma ñëw tey nga téye sa bopp xooloo ma sax lan moo xew wax ma lu xew lantinoor kese la samay tuñ daawoo ma dënd diw ko ci dama sonn ci yow mama seetlu nga li ngay wax bu baax nee naa la nee naa la relation cinq ans yow cinq dafa doy dóoroo faywoo xeexoo àttewoo xeex bon la yàlla yàlla bay sa tool man jigéen laa dama tollu si bëggante war a sëy war a am samay doom njaboot war a am samay njaboot yar leen waxuma la nag yow cinq ans lañ ànd jamono trois mois gis la bëgg la loo si xam xam nga loolu dafa yàgg terme yi bees yi génn ay bébé waaye yow mun naa muur dama ma doon wax mun naa muur dëgëral sa voix ma gis xale bu may wax bébé ay mon cœur nga topp ma rek yow lan la wàcc ma waay bu may énervé nag maman booy sëy yàllaa koy dogal heure bi moo jotagul rek looy yàqamte ba pare wax yi ngay wax nii dafa éviter quoi sama diggante ak yow mën na ko yàq te xam bu baax ni ngay waxee ak man léegi ca langage da nga ko changé du mu comprendre dara ci li ngay def nii su fekkee ne dafa am loo bëgg wax mu leer moo gën nga may def nii quoi. ko <laughs> dara nag dangay soog jot boobu rek jamonoy kole dara baraade su baraade su baalu poussière ñu àndandoo nga sol sa pantacourt ma sol sama zipa paysan nga kubleeg man ma fecce fecc ba sama tànk poseer lan la xale bi xew waalisee ah entre cinq mille vingt mille soixante mille nga bëgg maa rey si cinq cent mil francs man maa ca jóge yàgg na. ci waali nga bëgg a dem dinaa la yóbbu ci waali. kii nag daa déggul jat de xam nga gaynde gu déggul jat moo gën a metti sa yaa waxagul li nga bëgg jat quoi. ay waay na fi yam nanu bàyyante. ndax man xalé safi lay wër xalé coupable yi criminel consommation ni di tuer ni way yow tuer wo ay ma sama jam keul dem way yow. gannaaw na nga baal bu boobu ba am fi toog di romantique xamé nga ay endo la Moussa daa xewi ak sikkim yow lan man nak jigen mo ni suma don gor jigen taxaw ne ma bayima ma bayiko bam neex xam nga la laa lay waaye nga topp ci rek mel ni si ngoon tas ah, eh, xam nga la laa lay yëgal gis sama diggante kii mosuma di cee dugal est-ce yaa ngi may dégg bu baax na njëkk tey na mujj tey ma wax kii nga dugal sa dégg nga yow nag ma nee naa la mafia bi ku ci bokkul xiir gi dalay dal te yow xiir gi dalaa war a dal ba say ginnaaw dagg nee naa la boo fi toogee nii yaa fi yàggal sa boobu wax ju bëri jëlee lu may man ndax damay yokk énervé nii tamit. waay Samba. Ah. bi laa la wax de lu neex laa lay tegal xale saf yi. an naa la yóbbu si waale bi yow daal poussière bu bu romb jamonoy année 60 boobu ba tey dama am gan sama gan gi nag bëgguma mu ñëw mu fekk la fi damaa bëgg nga déplacé wu ah waxuma kii yow balaa sama gan gi di yegg si. mu de wiiru bi ñen ñi xawma dof la xawma gàtt xel la quoi ba tay mi ngi tok de mo mo me vent de ak kii kon yéen da ngeen def li ngeen di def ni ba par quoi ha ah, da ngeen ma bëgg a legi quoi jënde ma kenn loolu ngeen paré pour pour pour def ko nii ah? yo fatti lu ko dem man xalay sa fi lay wër xalay sàndeeku ko kooku yow place tëlëg yow. ça va na def.

Oui. mais y' a quoi xew. xaw ñu woon la ko woowee lu ko bàjjenam. dégg naa yàlla bu la màttee nii ngay def. dem de kii boo ko woowee bébé war nga ko woowee bébé parce que sama jabar sa jabar la. mbette église wala jàq yow kat bëgg naa nga réglé nag. li wax ni. mais xam nga lan moo ma dafay ree kon yow li ñu wax whatsapp yi kii nga ma doon. mais soxna si xam nga kii yow man ak moom ñaata at la ñu ànd bi ñu nekk xale ba léegi. ah may wax nga toog naan ma gardien. yow kon gëmoo dara yow doo nitu dara yow li ngay nekk fii naan dama war a am gan dama war a def lii tey ab jógal abal ma ak yooyu yëpp parce que Europe la jógee moo tax nga bëgg a doxalee nii ak man ah yow tekki woo dara yow ci réew mi yow kii moo tax ngay përti përti boobu ba léegi di ma ci. soxor nag yàgg nga koo def li ma koy wax ma koy nëbb ki nga may jënde ki nga may jënde kii moo tax nga cenc bëgg a taxaw pour trahir mu quoi sama xarit la trahir ci dafa pare pour trahir mu parce que yow la diggante wóor yow mu fi war a ñëw non man booy jigéenu sénégalais yi jaaxal na sénégalais yi jaaxal nañ ma quoi yow nga wax ma ne ma tu es seul. je suis kay. mais boo nekkoon seul di nga fi nekk ak kii ba pare bu ko woon. 25 000 ma lay jox nga xeeb kon ay milliards nga ay millions nga doon séntu ci moom ah. yow déggoo ma man dama laa bàyyi olof Ndiaye dafa am sax lu mu wax tas dagan na sëy sëy sëy dagan na tas dagan na man maa la fase. kii laa bëgg kañ jeexal na wax ji. <laughs> ah. man ak yow waxante wu woon loolu te man lépp lu ma mës waxtaan ak yow moom mi yëg na ko ndax man ak kii depuis ñu nekk xale ba léegi ñooy ànd mësuñu réeroo ci dara ba ma xamante ak yow laa ko wax wax te dama ne woon tey su ma fii ñëw maak moom ñuy ànd damaa jaar këram fekkuma ko fa moo tax ma ñëw fi yàq nga ko nag parce que kii fu mu xas a teg tànkam suur naa man maa la suur léegi yow ku mën a fen nga. si ku mën a fen nga. ma nekk fële nga yaakaar ñun ay ngaaka lañu dañoo dem fële pour liggéey yor xaalis bu ñu yor sànni ko ci mbedd mi et tout mais yàq nga ko heureusement li ma def ci yow bariwul te may naa la ko ci xol bu sedd guy ma jàppe ko comme dama ko defal sama jabar ndax moom mii waaw mais bu dee man kese doy na. waa léegi da nga ci xeex te li ñuy xeex nag mu saf saf. da nga paré pour bayima man jek na la baye ben ne ben non kan? attends ya. ñaar fekke sa tabaski yépp ci ki nga ko yaakaaroon jàppal ni sa tabaski yàqu na parce que kii ko li ngeen doon dund yépp xamul woni man ak yow ñooy dund moo tax ngeen di dund li ngeen doon dund lépp mais bi ci nekk tay yéen ñaar xamna man loolu yow kañ bàyyil sa bàyyi rek mais kii bàyyi bi de yombee te danga ma doon jooytu naan ma tabaski bi amuloo yére boo sol amuloo cheveux lu nekk nga wax ne amuloo ko mais dinaa la ko may ci xol bu sedd guy si daa nga may ko ko tax te yàlla tax noonu bis boo ko ko joxee nag ma xam ne li ngeen setu ba tey muy continuer yow bëggatuñ la fase nañ la munoo génne fii nga bàyyi ñu ñu waxtaan suñu wax ba nga ko fasee ba pare man it noonu laa la jaaree fase suur la àdduna ak alaaxira kii man ak moom ñoo bokk ndey ak baay sama xarit la. c'est mon frère de sang. lu mu xas a xool bëggatuma. mu ngi koy xool du om bañ koy bës de. te yàpp la ak deret ak sidi. lu ca xasal bagg lu nekk. mbuus bi joxuma la.

Chumi wayo. Ruso. Ruso mangurus ya lama ini. Anda mah balon ya, balon ya. balon mah. Ki yag soal Sun foto yep dog na ko 5 ans. Lolo tax manal. Mudu mudu yi ngay gis. Fi lañ juddo ci dëkk bi. Yaro fi magge fi. Beureul fi, tol fi tolante fi. Joge fi dem. Liggéey ji ñibisi. Ta bala ñu jox ben xalé bu jigen lañ la indil wala lañ lay may. Dañ lay ñëw fekk sa kër. xool noo toogee xool sa situation lépp nag loo leen ma sa wax ñu noté ba mu baax toog moom ñëw tey waa ji ni ñu fekkee rek. dëgg la de.